salaamaaleykum internet waa Feeling Dakar dal leen ak jàmm ci xibaar yi li ci gën fës nag bokk na ci euh, Sidi Diop ak Mandiaye Seck mi nga xamante ni daal dinañu euh, jubbowaat dinañu wax tamit euh, ci ki nga xamante ni moom moo di Balla Gaye numéro 2 ak Bombardier seen combat boobee nga xamante ni daal nañ koy dina ñu wax tamit ci ki nga xamante ni moom moo di soxna su Idrissa gànn Gueye mi nga xamante ni nag ci benn.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 daal nay uh, àddu ci uh, viwam ak uh, Idrissa Gana Gueye waaye tamit nag daal na ñëwaat ci transfert bi nga xamante ni nii daal di woon nañ koy def jëkkëram joojee gannaaw bu mu jógee woon Everton war a dem fi nga xamante ni moom moo di ca Paris Saint-Germain moom nag Pauline Gueye daal xam la rek ni ko transfert boobe daal di woon nekk la nga xamante ni nii daal di woon métti lool ndax nag kii di Idrissa Gana Gueye gannaaw ba mu nekkee woon Everton woon di fa évoluer rek moom nag euh, daldi woon na habité wu euh, foofu waaye nag bëggul woon bàyyi ba tax na sax gannaaw ba ko waa Paris euh, woowee rek moom moomee da doon hésité ngir dem foofee ca Paris Paris Saint-Germain wala mu daal di des fi nga xamante ni moom moo di ci Everton bi mu nekkoon waaye nag finalement ci mille 2019 rek la euh, ki nga xamante ni moo di euh, Paris euh, Saint-Germain daal di nangu Idrissa Gana Gueye ci loxoy Everton moom nag Pauline Gueye révélation yooyu la def ci li nga xamante ni moom moo ñeel jug gépp Idrissa Gana gey Everton jëm fi nga xamante ni moom moo di ca Paris Saint-Germain bu ñu jógee foofu dañuy daal di wax ci combat bi war a dox ci diggante Balla gay numéro 2 ak Bombardier euh, combat bi nga xamante ni nag Gaston Mbengue moom moo ko daal dëgg mu waroon a am le 26 juin bu ñu dëgmal combat boo xamante ni nag daal di nañ koy reporter bu ñu sukkandikoo ci yéenikaay bi di last ba tax na combat boobee nag la tax ñu daal di koy reporter euh, moom moo di CNG moom moo daal di validé wul date boobee ba tax na. na nag daal nañu jàpp ab date boo xamante ni nii moom moo di le 31 juillet la ñu war a euh, jàkkaarloo ñoom yi mbër yooyee gannaaw Balla Gaye 2 nag moom daal di woon def benn sortie ci émission boobee di encore plus di amee foofee ca 2STV moom Balla Gaye numéro 2 gannaaw ab euh, révélation boo xamante ni daal na ko fay def waaye nag euh, kii di adversaire am di Bombardier moom nag tardewul répondre ko benn yoon ndax nag moom bombardier ci ab vidéo daal dina xamle rek ni que kii di Balla Gaye numéro de dekk na koo xamante ni nii xam na ko bu baax a baax ci euh, Balla Gaye numéro de nag na respecté ay engagement yi nga xamante ni daal dina koy jël ndax nag bombardier daal na xamle rek ni que moom bombardier euh, moom Balla nekk na mbër boo xamante ni nii xam na kuy bombardier xam na tamit euh, lan mooy bëre bombardier kon nag bu bés boobaa rek na dëggal boppam comme ça combat combat bi euh, mën a neex euh, waaye nag dëggal boppam euh, mel na ni duñ ko jàngal Balla Gaye numéro de benn yoon ndax nag ku ci nekk rek xamee na Balla Gaye combat boo xamante ni nii rek dafay daal di taxaw daal di bëre bëre bi moom sax loolu la daal di xamle ci émission boobee di encore plus gannaaw bañ ko fa dalalee woon. bu ñu ah, noppee ci loolu nag dañuy daal di wax ah, ci ah, ñaari artistes yi di Sidi Diop ak Mandiaye Seck gannaaw nag coow li nga xamante ni nii daal di woon dox ci seen diggante ba tax na sax coow loole daal di woon andi rival bu métti ci seen biir ci noonee nag kii di Mandiaye Seck daal di defoon ay sortie di yëkkati ay kàddu yu ñagas jëmale ko ci Sidi Diop ba tax na sax ci fàttali rek amoon na benn coow boo xamante xamante ne moom moo mujjee woon am uh, ci seen uh, diggante uh, ba coow loolee sax loxo yoon daal di woon na ci am ci noonee nag ñu daal di gis ñaari artistes yooyee ñu daal di tese. ci benn euh, cant muy euh, cant euh, njógu afiya ñoom ñaar nag ñu daal di tase ci cant yooyee waaye nag ñoom daal di nañu saafonte daal di jël problème bi nga xamante ni daal di woon nekk ci seen biir rek ñu daal di koy jël daal di koy jël def ko ci seen ginnaaw daal di andi jàmm ba tax na sax ma yaay ci kàddu yi nga xamante ni nii daal na koy yëkkati rek mu daal di xamle rek ni que moom ab murid la te ab taalibe la ku ko xam-xam ni taalibe taalibe Serigne abdu Karim la ba tax na sax moom moomee jàmm rek lay daal di woote di jóg tamit waxi noppi mel na ni nag jamono ji ñaari artistes yooyee nag jàmm daal di na dig dellu si ci seen diggante ñu leen di ñaanal jàmm jooju daal di sax ci seen biir. bu ñu waa ah, noppee ci loolu nag dañuy wax ci ah, maître El Hadj Diouf mi nga xamante ni nag moom euh, à chaque fois rek bu euh, toogee ci euh, plateau wala li rek dafay daal di ŋàññ le président Ousmane Sonko cette fois nag moom dafa daal di dellu siwaat ci ay kàddu yoo xamante ni far da koy faral di wax muy ki nga xamante ni moo di président Ousmane Sonko rek moom dafa daal di demander nit ñi à ce que ñuy génn di yàq ak li ci noonee sax moom. ma euh, Me El Hadji Diouf daal dina xamle rek ni que xanaa nit ñi euh, dañoo daal di ragal kii di euh, Ousmane Sonko ba tax na sax moom daal dina dem bay wax rek ni que Ousmane Sonko dafa daal di liggéey nit ñi ndax nag euh, ab euh, simple nit rek mënoo toog daal di wax nit ñi ngir ñu euh, génn di yàq bien publique yi di viol andi li nga xam ni moo di violence ba noppi nit ñi di la gën a bëgg di la gën a sopp loolee nag maraboutage rek moom moo ko mën a def ba tax na sax moom Me El Hadji Diouf daal di na ci dolli rek ni que am na ci sax ay journalistes yoo xamante ni nii dañoo daal di ragal le président Ousmane Sonko. kàddu yooyu nag la kii di Me El Hadji euh, daal di euh, yëkkati gannaaw ba nga xamante ni nii daal di nañu euh, tàmm dégg kàddu yooyu ci gémmiñam bu ñu noppee ci loolu tamit dañuy wax ci euh, Pape Djibril Fall journaliste foofee ca euh, télévision Futur Média moom euh, Pape Djibril nag dafa daal di andi analyse am ci li nga xamante ni moom moo di ndaje bi le président Macky Sall daal di organiser woon ba tax na sax ndaje boobe nga xamante ni dafa daal di ñeeloon ndaw yi ak seen ay xëy ci noonee nag kii di Pape Djibril lu mu daal di xamle rek moom moo di. moom euh, lu mu doon xaar mooy euh, ay emploi yoo xamante ne nii dañ koy daal di euh, créer ak li ni mel ba ndax na sax ay formation yoo xamante ne nii dañ koy daal di defal ndaw yeeg li ni mel waaye nag discours bi nga xamante ne nii moom président daal di na koy amal foofee nag nekk na discours boo xamante ne nii daal di woon na koy amal en 2013 gannaaw ab forum boo xamante ne nii daal di woon nañ koy organiser te moom si jëmi boo xam moom le président Macky Sall moom moo ko daal daal di présider woon ci noonee nag Pape Djibril daal dina xamle rek euh, ni que moom xaarul woon loole ci euh, ki nga xamante ni moom moo di le président Macky Sall. ñu wax nag euh, ci euh, combat bi nga xamante ni daal di woon euh, dox ci diggante Eumeu Sène ak Lac de Guiers numéro 2 ba Lac de nag daal di yóbbu ndam li gannaaw ba arbitre yi daal di joxe défaite bi Eumeu Sène ci par avertissement ndax nag Eumeu Sène dafa daal di amoon ñeent avertissement bal Lac de Guiers numéro 2 daal di am ñett ci noonee nag moom Lac 2 daal di yóbbu ndam loolee ci noonee nag. 24 heures kii di Eumeu seen daal di dugal ab recours recours boobee nag CNG boobu ba tey ñu ngi ci woon di euh, jàngat ak linimel di xool di xoolaat waaye nag ñoom ñooñee daal di nañu joxe seen euh, verdict ndax nag CNG boobee euh, daal na jël dogal rek daal di maintenir victoire bi nga xamante ni nii daal di woon nañ koy jox Lac de numéro 2 ci kaw Eumeu dañuy euh, jeexale xibaar yi ak euh, Sankara Mbaye Sankara Mbaye nag euh, mu nekk nit koo xamante ne ni dafa daal di siiw lool à travers sinap yi nga xamante ne ni mu ngi koy def waaye tamit ci dëkk boobee nga xamante ni mu ngi foofee di États-Unis moom nag Sankara Mbaye dafa doon ñëw Sénégal ànd ak njabootam ci noonee nag ci aéroport international bu Blaise Diagne rek dañ ko fa daal di arrêté waa division des investigations. criminel di digg nag ñoom ñoo ko daal di euh, teg loxo ba noppi euh, di euh, fuyee li nga xamante ni moom moo di ay bagage am ci noonu sax moom mu daal di leen xamal rek ni que moom ñoom mënuñu ko intimider mënuñu koo xokkatal wala li ni mel ba tax na sax dañ leen daal di dëgtër rek ay kàddu yoo xamante ni ni moom Sankara Mbaye moo ko daal di woon yëkkati. sama gars yi ziar naa leen ni ma leen ko waxee woon noonu instant brigade bi mi ngi ni arrêté na ma dama bàyyi ba génn aéroport mu ñëw ne ma seeral ma seeral mi ne day vérifier samay bagage ñu ngi nii nag maa ngi nii topp oto bi oto baa ngi nii sama kanam sama gars yi intimidation bi commencé na de gis ngeen gars yi dajiloo nañ ma samay valise ci kaw tali bi gis ngeen fii lañ ma arrêté dajji samay valise génn neen daam yu ñuy wër kenn xamul lu ñuy wër gis ngeen ñoo ko gisandoo li ma wax rek l'intimidation a commencé mais c'est ça quoi c'est ça dajji na gis ngeen sama valise gis ngeen dama ko ambale woon lépp lañ dindi lépp you mais anyway we good we good internetu Feeling Dakar cant ak ngërëm na leen li lañ leen andiloon ci ay xibaar ñu leen di ñaanal jàmm te di ko sàkku ci yéen di leen jox dig daje ëllëg al jàmm ci yeneen i xibaar.